réew dafay torlu à des moments historiques moment historique boobu la ñu toll. jërë jëf mbokk internet yéen ñu ñuy topp ci seen seen bii di la Patriote TV dal leen ak jàmm bu ñu sukkandikoo ci journal bi nga xamante ni moo di Source A moom moom mi daal mu ngi ñuy xamal que ki nga xamante ni moo di président Ousmane Sonko ay ak ay mën nañ ne jot nañ li nga xamante ni mooy notification bi firndeel ne ki nga xamante ni moo di président Ousmane Sonko daal ab turam génne nañ ko ci list électorale. moomee nag di Ousmane Sonko avocat bi nag tey mën nañ ne biñ yégee loolu daal wala buñ jotee loolu dañ jubali fi nga xamante ni mooy tribunal bu Ndaka bu bu bu Ziguinchor baal ma. tribunal bu Ziguinchor boobu na ngeen xam ne ki nga xamante moo di président Ousmane Sonko Ziguinchor googee nag lay wala bureau de daal di nekk moo tax nag avocat mi jubali woon tribunal boobee maanaam ndax ñu mën a àtte li nga xamante ni mooy li tax ñu génne Ousmane Sonko ci liste électorale yooyu noonu ndax ñu mën koo nenal. ci fàttali nag ki nga xamante ni moo di président Ousmane Sonko nag li nga xamante ni mooy fichier de parrainage am boobee ndax nag bi nga xamante ni génne nañ ko ci liste électorale moo tax nag ñi nga xamante ni ñooy direction de élection de joxuñu ko li nga xamante ni mooy fichier boobee kon nag ñi nga xamante ni moo di président Ousmane Sonko jamono ji ay avocat mi daal ci gaaw gaaw gàttal ngi bëgg a nee na li nga xamante ni mooy turam bi nga bi nga xam ni génne nañ ko si list électorale yooyu noonu ndax turam nag bu ci xasee ba génn mën nañ ne pour mu nekk candidat dootul yomb.